alhamdulillah wa sallallahu wa sallam ala sayidina jullit ñu ngi sant borom di julli ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam di leen nuyu di leen ndokkeel di leen baal sunu borom li nu génn yàlla na ko nangul yàlla na ko fekke waat ñu di bàyyi xel bàyyiloo xel ci képp ku ko man juróom benn fan ci sawaal nga jéem koo woor yiwu rëy la gannaaw yooyu bokk yi ak jullit wéetal suma borom ak kennal ko ak bañ a kennal kaneel ku dul moom mooy wéral ak njullitam ndax lu dul sunu borom du kenn mënula ne kenn itam wa min kulli sayin xalaqnaa zawjayni la'allakum tasakkaruun la borom di wax lu dul sunu boroom am na lu ko tollanti kon kennal kenn sunu boroom lu war la farata la ci bépp jullit waaye kenn bi kenn mënu ko cee fekk doomu aadama képp nag moo am fitu gëm bu tollam di sunu borom sunu borom nee na loo gis mu ngi sujjootal sunu borom di ko kennal muy li nekk ci asamaan yi di nekk ci suuf yi muy jant bi weer wi muy biddiw ba ci garab yi montagne yi ak daaba yi ñépp maase nañu sunu borom di ko kennal kenn weddiwul waaye bi muy lim bi mu agsee ci doomu doomu aadama mën a ak lu bari ci nit ñi wa kasirum mina naas kon du ñëpp ndax lu bari ci nit dañoo wetti nanguwuñoo su suweetal sunu borom nanguwuñu ko kennal ñooñu ëllëg mbugalum sunu borom yaay na ci seen kaw doomu aadama nag lu bari lu mu ñeme dëgër bopp gond ak ñàkk xam moo ko ko ñemeloo doomu aadama lu ma dajal ëllëg mooy jëfi tayam kenn ku nekk li nga ji moo ngay góob soo lëgee ab jullit su kennalee sunu borom ba noppi wakkiilu ci moom lu ko war la su bëggee noppalu ndax wakkiilu ci sunu borom mu ne suta lim ay njariñam dafay bijj njariñ di jiñ loo moo boole lépp gëm yàlla mooy genn wàllu diine wakkiilu ci sunu borom mooy àq am yàqiin ci sunu borom nga am yàqiin ci ne moo bind lépp mooy wërsëgal lépp mooy dundal lépp te mooy rey lépp kenn du buur ku dul moom te moom moom lépp lu nit ku génn jë doyloo yàlla moo ko ca génne génnin wu rafet sayyiduna ibrahima alayhi salaam wakkiilu ci boromam te doyloo ko moo ko musul ca noonam ya ba ñu ko sànni ca safara sax ab jullit dëgg nag dafay nekk ci dëgg ba nopp door a ci sunu borom waaye nekk ci fen naan wakkiilu naa ci yàlla loolu jikkoy naa fekk la wakkiilu ci sa borom ndax yaa ngi ci dëgg gu leer lañu waxoon sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam fa tawakkal ala allahi innaka ala alhaqqil mubin wakiilul ci kiy dund te du dee mukk borom bi nee nañu gëm yàlla ci yàlla la wakiilu duñ ko booleeg leneen wa ala allahi falyatawakkalil mu'minuun noonu la sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam doy lool yàlla ak ñi la topp te gëm yàlla yaa ayyuha nabi asbuka allah wa man ittabaaka min almuminin yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee su ngeen wakkilu woon ci yàlla ni ko picc defe mu defal leen li mu defal picc picc nga xëyee ca mu tàggam ak xiifam gott ñibbusi ak biir bu fees te dara mooy ko lu mooy ci boromam ba muy xëy xamul woon fu mu jëm wakkilu ci suñu borom dafay dox sa diggante ak njàqare ak tiitaanga di la jox xel mu dal loo doy loo lu dul sunu sunu borom bis la ñëw nga wuti loo ca dolli ndax di soxla ci moom lu ma amul wala nga soxla ci moom dara fekk moom it mu soxla ko ba du la ko ba mu des sunu borom moom loo soxla ci moom ma nga caat lu dul jeex lu mu doyewul dara soo bëggee am noflaay bu sax dafay ngay ci sunu borom noflaay wëkk ci sunu borom mooy rafet njort ci sa borom moo ci jiitu soo rafetee njort ci sa borom nag sa xol féex nga moom sa bopp borom bi ne sama jaam bi li mu jot ci man lay fekk ci man waaye wëkkati sunu borom bokk yi sunu borom jox nañu ci bind bu leer ci jamono yi ci doxinu réew mi bokk yi ki jiite réew mi tey ca kaso ba la jóge ñëw jiite réew mi ndax wa man yatawakkal ala allahi fa xasbu ki ko jiital ba tax mu jiite réew mi lan lañu ko tegul ci gàllankoor ngir bañoon lii am kenn nit su mënee dékku gàllankoori état doyloo ak wakkilu ci sunu borom moo ko ko may ndax wa man yatawakkal ala llaahi wa huwa xasbu léegi nag yàlla jox na leen réew mi li ñu soxla ci yéen mooy liggéey jub ak maam su ngeen jubee jubal ñépp jub réew mi jëm kanam da ngeen tàmbalee liggéey bi nag ci jikko yi defaraat jikko yi nit ñi ak saytu alali réew mi tàmbalee ko ci ñu luumal alali réew mi nañ ko dellusi ndax alali réew mi alal yi réew mi la ñépp a ko bokk amu leen sañ-sañ bàyyee leen ko su leen leen ko bàyyee su ëllëgee da ngeen taxaw fi kanam suñu borom layoo ko ak sénégalais yépp fay leen ku nekk ak xam na ngeen bàyyi xel bu baax mbirum yoon mu bañ a am farfarloo ñépp a fa yem ngeen bàyyi xel ndaw ñi xam ne ne seen kàttan yéen li ci ëpp ci ñoom la bawoo na ngeen bàyyi xel ci ñi ci génn àdduna nañu taxaw seen njaboot na ngeen bàyyi xel kilifay diin yi jox leen seeni cir bu leen xañ mukk seen cër bu ñu xañ itam kenn cëram bu leen tool waaye nag na yoon def liggéeyam dañu taxaw ñépp nañu taxaw diine ji moo war a jiitu te ngeen moytu nguur nguur dafay gëlëmal xel dee leen bàyyi xel ci lépp lu ngeen def seen borom xam ngeen ne ba leen ñépp seetaanee ñenn ñi di leen sot sunu borom moo leen taxaw te li ngeen mën a fay sunu borom mooy bañ a tas yaakaari waa réew da ngeen taxaw te bàyyi xel bu baax ña nekk bitim réew dëkkuñu fa fii lañ dëkk bàyyi xel bu baax itam baykat yi suñu leen desalee gannaaw mënuñoo fexe ba réew mi jëm kanam réew mbay moo ko yore te ngeen bàyyi xel bu baax a baax ñi ñu yàgg a fàtt ci réew mi te mooy ñi nga xam ne suñu borom daf leen nattoo wàññi seeni cër muy way laago yi ak ñiy liggéey ci biir kër yi ñu leen fay waaye nañu bokk xam ne nag état kese mënu la yóbbu réew fen ñëpp war a marché futteeku liggéey réew mi door a mën a jëm ca kanam su état jiitoo def wàllam ñëpp topp ci réew mi jëm ca kanam te ñu delloo si jub ak maam réew mu njiit yi jub te maam sunu borom wàcc ñi jiite réew am ngeen jaar-jaar yoo xam ci àdduna su ngeen wéerul woon ci sunu borom du ngeen ko nettali tey bàyyi leen xel ci ne li réew mépp di xaar ci yéen mooy doxeen wu yees farfarloo na fi jeex ak lu mën alal réew mi ak di jël alal réew mi di ko jox ñu ko yowul waxtu bu ma tàmbalee xeetu doxin bi fi nekkoon nit ñi war leen gannaaw comme ni ñu wan leen gannaaw ñi fi nekkoon te yéen nguur waru leen a bewloo ca kaso ba ngeen jóge bu yàggul ñëw ci pale bi weer yu néew ci nekk yu xat ngeen nekkoon ñu di leen garde si ñu leen dem fenn muy kaso ba te yéen gi ci néeg yu yaatu di pale ba ba noppi itam paatu réew mi nag di seen loxo ña leen doon garde démb ba sañu leen def fenn ñoo leen di xàllal tey fu ngeen jëm te askan wi nag wàccoo nañu ak yéen ba xeex jotee xeex nañu ku nekk ak na mu doon xeex ba wote jotee itam woteel nañu leen loolu sax su rëy la te it ñëpp am yaakaar ci yéen ndax ki jiite woon xeex bi mel moom moo doon xeex ak état te mënuñu ko woon dara ndax bàyyee bu mu bàyyee woon boppam boroomam kenn ci ñoom na suñu masaane ko nañu seeti kilifa yi ñu wax ci mu ne nañu bàyyi lépp ci borom. loolu dañ ci jàng ne li sunu borom bi defal jullit bu aj mbiram yépp ci boromam aju ko jiw askan aju ko jiw sant ku ko def rek mu jox mu defal la loolu bokk yi sunu borom moom dong mu ah gannaaw loolu itam moom sunu gannaaw gannaaw bu muy defee loolu borom bi moom dong lañ fi dégg mu wax ne fa mu doon liggéeyee def na fa fukki juróom musu faa lépp musu juróomi dërëm te kenn weddiwu ko moom la ñu mas a gis itam ci histoire ku xeex mbir mu toll nii ba mu sotti nga jiital keneen topp ci gannaawam loolu nag wax dëgg gone yi war nañ cee bàyyi xel bu baax a baax baax ci jikko yooyu yi su soloon keneen mbir mi dafa yàqu waaye du ci jiital kenn mukk kon nag ndaw ñi ne nañu bàyyi xel ci jikko yi ndax lépp nañu xam ne nag sunu borom rek la sunu borom moo sàmmal sunum réew li fi xew lu ko yées taal na ay réew waaye suñu borom noonu sàmmal nañu suñu réew ba jàmm rek am fi ndax dafa am ci réew mi ñoo xam ne bu guddee ba ñëpp nelaw ñu jóg di julli ak di ñaan loolu bokk na ci li aar réew mi nangeen ngeen gën a taxaw itam daara yi ku ñu fi yéem ci mbaax ak jub daaraa ko def ci yow kon yàlla yàlla defal jàmm ci réew mi te defal jàmm te defal ko suñu njiit yu yees yi te may leen ndam seen ndam mooy ndamal réew mi te suñu jubee te jubal dinañu am ndam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na sunu borom su bëggee booli àdduna su ko bëggee defal yiw daf koy booleeg jaraaf yu jub te dëggu ba su fàttee ñu fàttali ko lu mu song ñu jàppale ko ja yaxfirullaahu lii wa lakum wa li saa'iril muslimiin